di jiite assemblée nationale waa wala déet journal bi di réew mi quotidien nee na amul lenn lu leerloo xam ne Moustapha Niass wax na ko sax bu dee lu leer li mu wax dal mooy ci atum 2022 dootul jiite te parti bii nga xam ne mooy AFP yéene kaay gi de la tribune nee na Moustapha Niass nag yéex na lool jóge gi nga xam ne jóge na ko ci bopp AFP yàgg gi nga xam ne Moustapha Niass yàgg na ko fa moo tax bëri na ay kàngam yoo xam ne nekkoon nañ ci biir parti bi jóge nañu AFP yéene kaay gi di le quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Moustapha Niass ma ngay dem retraite ma ngay bàyyi lépp loo xam ne jëm na ci parti bi di AFP journal bi di Vox Populi nee na nag soo moytuwulee ab xëccoo dina faama diggante docteur Aliou Sarr ak docteur Malick Diop ak Mbaye Dione bataille de Troie yéenekaay gi di Direct News xëy ci xale yi nga xam ne ñooy lab ci géej gi yéenekaay gi nee na lu toll ci téeméer ci ay xale yoo xam ne faatu nañ ci géej gi durub lu toll ci juróom ci ay weer waaye nag tous coupable ñi nga xam ne ñooy état bu Sénégal am nañu si part de responsabilité ñi nga xam ne ñooy maire yi am nañu si part de responsabilité waaye tamit ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñoom tamit am nañ si part de responsabilité yéenekaay gi di Vox Populi njiitu réew réew mi di président Macky Sall daan nay tere lépp loo xam ne jëm na ci xale yi nga xam ne ñooy dugg ci géej gi ci bërëb yi nga xam ne dañu koy tere sant na ko ministre bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange réew me nee na bërëb yi nga xam ne dañu koy tere ci géej gi abul nangu benn xale di fa dem yéen a kaay gi di Le Quotidien wax ci lu jëm ci woppi coronavirus ji ak vaccin yi nga xam ne moom la ñu andi ci réewum Sénégal vaccin yi bëri na ay sénégalais yoo xam ne dañu ko dumoyoo ndax vaccin yi li muy bëri bëri lu toll ci quatre cent vingt huit mille kese ñoo ñàkkoogun ci mbir mi yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Alioune Tine na nag langu politique gii nga xamante ni violence bi bëri na man Alioune Tine dàquma benn yor guerre civile am ndax li nga xam ne moom laa gis maanaam dalul sama xel njabootu Macky Sall gi nga xam ne seen kër raa dañu ko lakkoon ci département bu Matam njiitu réew mi di président Macky Sall mujjee naa jégalu village familial bi nga xam ne maanaam jaaru foona waaye nag mujjee na leen dalal fi nga xam ne mooy maatam yéen kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa collectif ñoo lànk ñoo bañ nag ñoo ngi ñaawlo bu baax a baax nervi yi nga xam ne ñooy ànd ak Macky Sall ñoom nag ñoo ngi sàkku li nga xam ne mooy ab information judiciaire daal di koy ubbi ci nervi yi nga xam ne ñooy ànd ak Macky Sall di dóor gaay yi yéen a gi di réew mi quotidien nee na njiitu di président Macky Sall ni ki démb amal na ab conseil des fi nga xam ne mooy Matam waaye nag Macky Sall yedd na ñi nga xam ne ñooy étudiants yi di yàq loolee a kaay gi de la Soleil nee na njiitu réew lu toll ci quatre cent cinquante milliards lay dugal fi nga xam ne mooy Matam nee na leen dinaa leen tabaxal ab université nee na leen dinaa leen tabaxal ab hôpital nee na leen dinaa leen tabaxal ab aéroport yéen a kaay gi nee na en tout cas Macky Sall li mu diggee ci Matam bëri na loola Mamadou Lamine Diallo bu tekki nee na tournée économique bi nga xam ne Macky Sall ma ngi koy def yàq xaalis yàq xaalis kese la Macky Sall yi def jamono ji waaye tournée bi amul benn njëriñ yéen a kaay gi de la turbi na njiitu réew mi di président Macky Sall tontu na ñi nga xam ne ñooy wax ne Macky Sall dafay def ab tournée politique day def ab campagne déguisée Macky Sall nee na defuma ab campagne déguisée defuma ab tournée politique damay def tournée économique ndax nag lii moom ngeen gis sama di ko inauguré ak di teg première pierre bu dee nag loolee moo leen métti yéen a kaay gii di l'info xëy ñu xibaar naa ñu askan wi nga xam na ñooy yeewu Ourossogui ñoom nag dañoo mer ba futu ndax nag ba fa Macky Sall jaare maanaam ay sagar yu xonq la ñu takk ay sagar yu xonq la ñu takk wane seen mer bu baax a baax journal bi nee na grenade lacrymogène yi sax jot naa jolle yéen a kaay gii di enquête nee na nag jamono ji daal maanaam lan moo fi ñor bañ koy met ci loolee moo ñu jaaxal yow élection locale yi des na lu toll si juróom benn ci ay weer ji nag campagne électorale bi ci boppam moo commencé kaay gii di réew mi quotidien génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Côte d'Ivoire nee na Laurent Gbagbo mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon réew moomee ginnaaw fukki at xam ne génn ko ca réew ma tey ji ci alxames ji la Laurent Gbagbo di ñibbisi fi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire ñi nga xam ne nag ñoo koy jàppale ci lu jëm ci wàllum politique ay farandooma jamono ji ñoo ngi koy xaar bu baax a baax waaye nag ñi nga xam ne ñoo loro sa jamono yi Gbagbo victime di koy teg loxo yéene déclaration yéen a kaay gi di esat xëy dañu xibaar naan ñu défenseur bii nga xam ne mooy défenseur bu Real Madrid bi nga xam ne 2005 la ci club boobu jóge na sa club ba yéen a kaay gi di esat xëy na ci trophée yi nga xam ne Sergio Ramos jël na ko ak but yi nga xam ne Ramos dugal na ko passe yi nga xam ne def na ko ak penalty yi mu dugal mbëkk yi nga xam ne dugal na ko waaye tamit Ramos mooy joueur bi ëpp ay carton rouge ci club bii di Real Madrid